asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar fii ci Sine TV ci émission bi ñuy wax Riada aja mbokk yi ni ñu ko waxee woon rek Riada ci sport lay dox ci wér gu yaram dox comme li ñu ko waxoon ne tey ñu seeti tey benn ndaanaan benn coach ku ñuy wax Babacar mu nekk doomu Fatick nekk doomu dëkk bi di coach bu mag coach boo xamante tey kenn du ko présenté ci biir Fatick ci wàllu fitness ci wàllu gym xam nga tey nag tey nañu indil tey body attack body combat tey nañu indil tey full body tey nañu indil tey aérobie kon nag gars yi tey mbokk yi topp la ñu tuuti rek ñu xool xam seen yëf la ñu ñoo moom li ma ko waxoon rek Sine TV ñu ñoo a suuxat ñoo ko a jëmal ca kanam gars yi ngeen di abonné xam di partagé di commenté sponsor nag ngeen ñëw jàpp ci baax a baax a baax ndax lii def rafet ñun ñëpp ay doomu Fatick lañ Fatick a defar ku ci nekk nag a développé kon ñun wàll bi ñu nekk ñun ñu baax a baax a baax suñu élément waa Sine Fitness Club di nuyu baax waa Sine TV aussi di kontaan bu baax a baax baax ci élément yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci salle bi di fi entraîné kon jël On marche sur la pointe des pieds, on est là, on marche. Encore. Une. Deux. Trois. Encore. Quatre. Encore. on va sauter sur place, on est là. Encore. Encore, on saute sur place. Encore. Une, deux, trois, deseos y sentimientos sin control. Intentaré olvidar el tiempo que el dolor, el dolor

you go. jeune. Ah. Ah. Un, sauter avec. Ah. ñu ngi di nuyu di leen ku ci nekk sa tur sant li ñu ko waxee rek émission bi fii woon ci Berthé Sine ñu invité tey benn coach boo xam ne tey kenn du ko ci biir Fatick day ndaanaan di mën li muy def képp ku ci nekk ku yor saal tey ci àddina bëggoon nga am coach fu mel ni Babacar parce que xam nga ci bëgg bi xam nga ci xam nga ci xam-xam bi ci lépp kon bu ñu yàlla dimbalee tey ñu am ko tey gratuit tey tey dañ koy invité tey ñëw fii ci esplanade bi benn sin may ko waa Fatick yëpp tey tey noonu nag tey boo gisee ñu def ko maanaam bëgg nit ñi xam lan la euh, gym di di di jëriñ bëgg nit ñi xam lan la sport di def ci wér gu yaram doomu aadama ndax parce que démb Ndiaye demoon nañ seeti benn médecin wax nañu tey ñàkk a def sport lu muy def ci doomu aadama aussi di ko def wax nañu aussi ban njëriñ la def doomu aadama kon nag bu ko defee dañu fay jógaa tey may ko kon Babacar dañ lay nuyu bu baax di la dalal fii ci émission bi ñu wax Riyaada fii ci Sen TV. waaw asalaamaaleykum mbokk Sen TV mbokk fatik maa leen di ziar di leen jéggalu di di leen wax daal kontaan nañ ci émission bi et que franchement ñu ngi ziar ñëpp di di nuyu ñëpp daal. waaw Babacar aussi tey entraîné nañ tey bëggoon nañoo xam tey euh, parce que lan lañ entraîné tey bëri arak bëri a lañ entraîné wala full body lañ def wala dañoo def aérobie wala dañ ko jaxase mélangé ko bëgg nañ jël nga décortiquer ñu li ñu entraîné tey ñu xam lan la yan mouvement lañ entraîné tey bon en euh, pour une comme vu que une première fois donc dañoo def aérobie yënga def euh, aérobie pour mun a tàngal suñu yaram mun a yeeyaat suñuy muscle tout ça bi ñu paree aérobie après ci lañ def quelques séances step pour mun a en fait pour mun a pour mun a en suñuy suñuy cër ñu mun ko gën a mun a yaatal gën ko mun a te att teg teg loo xam ne boobu attan na ko daal bi ñu paree waa ubbi yaram bi ñu paree si lañ def quelques exercices squat pour mun a defaat forme yi euh, les cuisses ak fessiers aussi lool lañ loolu lañ jot a def ci séance bi ñuy jot a def nii nii incha allah. Euh, Babacar am na njëriñ léegi dañuy commencé balaa ñu commencé kàddu gi dañuy dañ lay laajte kan mooy Babacar kan mooy coach Babacar. Bakar jaar jaari Babacar ci benn 30 euh, secondes rek ñu ñu xamul Babacar ñu koy dégg coach Babs coach Babs parce que gars yi ne ma bu ma ma ne ma demal nga invité Babacar parce que gars yi koy gis stade fu ne ma ko stade bëgg nañ xam kan mooy Babacar xam nga léegi nag gars yi ñoo ko euh, juste dafa nekk nga xamante ne tey dafa dëkk biir Fatick Euh, yàgg a bëgg sport depuis xale ba léegi dañoo bëgg sport euh, léegi nag ñu do ñuy dox ci sport di gëstu ci sport ñu tey ñu dem gëstuwaat gis ay coach yi nga xamante ne ñoom dañ ñoom tàggat nañ leen ci wàllum sport ci wàllum ñu ñu xam ne tey ñii buñ jëlee ci ñoom xam-xam dinañ ñëw andi ko fii suñu Fatick fii ñu dëkk fii nii. gën fee euh, dundal sport parce que coach Babacar moom wax dëgg fa ne yàlla dafa sport dafa nekk loo xam ne ambition la ci moom te da ko yàgg a bëgg te da cee yàgg a dox looloo waral tey ñu mën a tey dox ci wàllum euh, fitness fit fitness et musculation et tout ça moo tax daal côté euh, sport daal daf ñu mus daal waaw. mais bëgg nañoo xam aussi euh, maanaam sport bi def sànq euh, donc li def gym bi def parce que am ñoo ne bu ñu gisee gym li yomb li moo ko def affaire jigéen la mais comprendre ñu quoi mais am ci wér-gu-yaramu doomu aadama tey. li def dèjà comme ni ko waxee comme ni def

pour mun a dèjà pour mun a yee yaram yi dèjà pour mun a tey nga xam ne say sa yaram tey loo ko mun a teg mu tegoo ko de telle sorte que tey sa sa wérgu yaram day day gën a naat daal. kon daal su ko déggee daal day mel ne aérobie daal moom mooy réveil musculaire quoi moom mooy yee yaram yi pour xam yaram yu mun a tàng bu ko defee moo dimbale pour nga mën a def yeneen mouvement yi a dimbale pour nga def yeneen mouvement bi comme par exemple boo commencé sport étirement nga def sa aérobie ba pare pour mën a yee muscle yëpp de telle sorte que ci ngay mën a def say step wala body attack wala body combat pour mën a tey par exemple yow daal lépp loo munti des loo loo mun teg sa yaram mu tegoo ko loolu loolu lay waral tey séance bi ñu def ni moom def séance aérobie bi moom lañ def tey léegi ñi nga xamante ni dañ naan euh, gym dafa yomb sport jigéen la ñooñu lan nga leen di wax. bon gym dafa yomb sport jigéen la man moom kuy wax loolu moom dama la naan ñëwal ba ñëwal ba xam. nga ñam ba xam boo ñamee ba xam di nga xam ndax sport jigéen la wala du sport jigéen parce que tey boo xoolee tey gym bi ngay def tey yow dalay dalay permettre tey sa xol de tele sorte que tey boo munee dem tey boo xoolee tey ki la dàqam musculé tey boo ko yóbboo mu def fitness du fa def ak yow benn benn cinq minutes du ko def parce que tey xolam yaatuwut tey euh, fitness bi ngay def tey wala euh, physique bi ngay def tey day yaatal sa xol bi de telle sorte que loo mun a tegoo da koy koy tegoo moo tax ku naan daa yomb rek ñëwal ba xam ndax dafa yomb parce que ñun xam nañ li ci nekk te xam nañ ci sentir suñu bopp bu baax. léegi ñi nga xamante ne dama nekk ci kër yi li ma ko waxee woon émission bi passé rek di lekk ci suukar bi lekk ci diwlin bi te duñu sport yow ñooñu lan nga leen di conseiller. non man moom conseil bi bi ëpp ñëw ñëw def sport parce que boo defee sport wàllum euh, suukar bi dina wàññeeku ci yow wàllum xorom bi dina wàññeeku ci yow de telle sorte que tey yow tey di nga sa état de santé ni nga ko euh, ni nga koy foogee sax da day day ëpp sa njort de telle sorte que tey jamono jii ñi ñii toog di lekk bañ tëdd nelaw def lu ne tëdd nelaw te defoo sport yaa ngi ci erreur feebar dalay yomb da feebar da lay yomb te ay yaram yu métti da lay yomb. te tey boo ñëwee def sport loolu yëpp da da la koy fànqal moo tax maanaam daal sport daal dafa nekk loo xam ne daal mooy médicament bi njëkk daal ci ci nit léegi ñi nga xamante ne dama nekk ci kër yi damay naan damay liggéey ba sonn mënuma amoo temps pour dem entraînement xam nga tey dama jàpp ne aussi sport wér-gu-yaram moo tax ñu dañu koy def léegi te yaakaar naa fépp booy liggéey ci àddina boo wérul dootoo fa liggéey yaakaar naa bu wérul sol mënoo lekk ni ma koy faral di waxee rek kon lépp looy def ci àddina day day fekk nga wér ba pare doo ko def te sport yaakaar naa ne ngeen mooy meilleur médicament bi nga xamante ne moo mën a faj doomu aadama moom mooy meilleur médicament loolu médecins yi ci àddina bi yëpp dajaloon nañ xool ba xam ne euh, sport mooy li nga xamante ne boo koy pratiquer yéen feebar yu ndama du la dal yéen feebar yu yu yu bëri tey yàlla dala ci suturaal kon ñi nga xamante ne ñu tëdd ci kër yi dem toog ci bureau yi clim yi xam nga te duñ entraîner ñooñu maanaam lan ngeen di wax pour ñu dem dem ci saal yi wala dem entraîner ji wala ñu dem di day wala ñuy mars ñooñu damay jàpp ne tey certes seen seen jot moo leen ko dul may mais tey loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk jot tey mun nga tey par exemple ut sa coach coach personnel ba nga xamante ne tey yow moom dina lay mun di jox exercice yi nga xam tey tey y a a des yoo a a permettre tey yenn activités yi nga war a a def boo boo boo koy def da nga koy sa bopp booy toogee sa bureau clim bi di la dal lépp di la dal la moindre des choses amal benn ñàkk ba nga xamante ne di nga ko génn ci sa yaram pour nga mun a gën a am sa sa wér-gu-yaram gën a mun a naat waaw. léegi ñi nga xamante ne tey dañuy bëgg coaching à domicile est-ce que Babacar pare na pour euh, def loolu wala aussi mu koy def wala. non coaching à domicile ñu ngi koy def coaching à domicile franchement ku ci ku nga xamante ne dafa pare tey pour coaching à domicile dinañ ñëw dinañ déplacé wu ñëw sa kër dafa lay exercice jox la ay jox la ay jox la ay exercice yi nga xamante ne mun nga ko def tey ba ëllëg tey même bu fi coach Babacar nekk sa yow tey di nga mun a demal sa bopp de telle sorte que xam nga lu baax li nga war a mun a def. léegi ba ñoo tàggatoo yi dugg ci sport Fatick parce que ñun ñëpp xam na ñu ci Fatick lañ nekk xam nga te Fatick dëkk boo xamante ne dëkk bu yéemi la. neex naa dëkk waaye dëkk bu yéeme dañuy dañ lay laaj ba xam sport Fatick ndax mu ngi développé ba xam. no sport Fatick moom wax dëgg fa ne yàlla sport Fatick dafa suuxe parce que tey boo xoolee tey ñun Fatick waroon nañ dépassé stade bi ñu nekk ci wàllum sport. te boo xoolee tey lépp lépp lépp lépp jeunesse bi tey dañ lu ne jéem nañ ko def pour jeunesse bi tey pour bugg a tey ni sport bi dañ ko mën a mën a jox jox gëdd. boo xoolee ñu ngi def luñ mën suñ këmtulaay kàttan pour sport Fatick mën a jëm kanam waaye tey sport Fatick li tax mun a jëm kanam parce que par exemple nee nañ ndimbal dafa euh, na ca fekk loxol borom boo boo yëngawul kenn kenn euh, kenn kenn du la fekk si mais tey looloo tax tey ñun tey suñu suñu xeex yëpp sport Fatick jëm ci kanam waaw. léegi léegi lan nga gis ne moo war a mën a développer sport Fatick. bon développement sport Fatick engagement la déjà en premier engagement la en premier. jeunesse bi tay génn tay par exemple ñu ñuy booloo ñun ñëpp ñu fi nekk tay booloo doon benn lu ñu ciy fekk fekk ñu ci ku ñu war a dimbale dimbali ñu ku ñu war a dimbale dimbali mais ndimbal la ca war a fekk loxo boobu engagement la déjà de un man je vais pas dire comme par exemple les politiciens et qui soit engagement la personnel d'abord engagement personnel am ba bu ñëw pare lépp da lay fekk si moo tax ma tey jeunesse espoir Fatick bi mu suuxee nii tey déjà jeunesse bi déjà ils sont pas motivés motivé wuñ déjà pour def sport ñom pour ñom sport dem euh, salle musculation yëkëti weñ tout ça am doole fi ça non non ça sert à rien en fait waaw wone dënn bi jaay prek tout ça comme coach Cheikh donc loolu yëpp am loolu yëpp dañuy loolu yëpp tey dama jàpp ne engagement personnel bi déjà bu ñun ñëpp jeunesse Fatick bu ñu boole woon doon benn sport Fatick dina jëm kanam incha allah. waaw ah, Babacar kaddu gi rafet na li gars yi di wax rek naan li du fi li du ci nag bi xaju ci cin mais dama bëgg nga nga nga wax ak sénégalais yi ma bëgg la fin de mois incha samedi bi jiitu ñëw fi berde may waay fitness bu bu bu show comme bu mel bu bu neexee nii te xam nga bii tey waajuñu ko xam nga samedi lañ toog waxtaanee ko xam nga yaakaar naa bu ko préparé day day a rafet day gën neex mais nag heureusement gars yi loolu jàpp nañ bu baax. non moom kay euh, Cheikh de toute façon ñun nañ suñu engagement donc di jox rendez-vous ñëpp Fatick waay ak Sénégal ñëpp chaque samedi bi njëkk ci premier ci weer bi fitness show dañ koy def ici au niveau de Fatick au niveau de du berge du des berges du Sine donc di invité ñëpp di tàllal ñëpp loxo ñëpp ñoo fekk si ñu sport Fatick jëm pour mun sport Fatick mun a développer pour sport Fatick mun a jëm ca kanam dinañ invité waat ñëpp nag coach yëpp dinañ boolewaat coach yëpp pour ñu ñëw ñu dundalaat sport Fatick pour Fatick et sport Fatick mun a jëm ca kanam incha allah. incha allah kon gars yéen a ko déggandoo Babacar moo leen ko may gratuite de mois samedi bi jiitu dañuy may gars yi fii. gym bu toog gym bu neex bu rafet Fatick waa yëpp mën a génn ñu may leen ko gratuit ñu ngi invité ñëpp nag képp kuy coach mbaa ngay pratiquer sport ñu ngi lay invité muy joueur muy mbër ku ci nekk kuy sportif rek bawuñ kenn na ñëpp ñëw maire mag xale ndaw ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw ni ko Babacar waxee sport ñu ko mën a développé ñu a jàppalante jàppal ma jàpp parce que Babacar mi tey lii suñu sens la suñu sens la xam muy jàppante ci saal yi yi xam di di ko def gratuite maam li muy def ci xolam la ko tibbee dama jàpp ne xol mooy nit li ma wax rek xol ak xel mooy àddina àddina boo ci génnee xol ak xel àddina jeex na lépp looy def da nga ko def ak sa xel lépp loo bëggul bëggoo ko sa xol moo ko bëggul lépp loo xamul sa xel moo ko nangul kon àdduna xol ak xel kon bu yàlla dimbalee ku mel ni Babacar tey muy defal espoir Fatick ñu dañ ko a teg loxo kon gars yi ñëw leen ngeen jàpp ci ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amul fi amul fee ñu ngi invité ñëpp waa Fatick di sport ñoom Mbaya ñu ngi invité gars yëpp ñoom Aliou Ndiaye gars yi ñoom ñoom Kosu Gàkku ñoom euh, ah kii Seynou ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw jàpp ji ñëw bokk ndey ñëw bokk baay kon Babacar ban moo ngay tàggatoo. bon man bi may moo bi may tàggatoo. mooy damay remercier su abdul euh, Abdoul. coach Abdoul moom yokku na tax lii tax ma gën a bëgg fitness. coach Abdoul ci la bokk. su Aliou. moom it euh, yokk source de motivation parce que coach yoo xamante ne ils sont au niveau de Fatick. dañoo gëm li ñuy def te dañoo xam li ñuy def di aussi euh, bon. suñu grand la coach Mame Dior moom aussi bi ñuy doogay tàmbale mu ne nañ ñëw mu ne ma coach amul Fatick ba ne ko non ñun on est des ñun ñun Fatick lañ dëkk. dañuy jël salle bi def ci liñ suñ kamtulaay kattan ba ñëpp te ku ci ku ku dégg ne Sine fitness club mu ngi dox rek dañ ciy dem ba fu ñu dem te ñun Fatick Fatick la ñuy représenté salle bu ñu munti dem au niveau du Sénégal ba Saint-Louis ay coach Gaye ñoom ñëpp. tey ñu ngi leen di remercier waat ñooñ parce que ñoom dañ leen dañuy yokk source de motivation ci wàllum sport surtout coach Abdoul dama koy répété waat surtout coach Abdoul bu baax a baax. doguma la sax doguma la parce que tey boo gisee ñu bëri tey bëgguñu dem entraînement dañuy naan Fatick euh, gars yi coach yi est ce que am nañ xam-xam te ñu gars yi xamuñ ne coach yi nekk Fatick ay gars yu am xam-xam lañ gars yi ñuy UNICEF lañ génnee xam nga gars yu am xam jaar ci ay kilifa nag ay coach yi au niveau lañ jaar gars yi formé leen ñoo fii biir Fatick kon nañ xam ne Fatick ay ndaanaan ñoo fi nekk Fatick ay borom xam-xam ñoo fi nekk li ñuy def gars yi lambatuñu ko de gars yi dañ ko mën dem kii xam li muy def buñ doxee da nga xam ne kii niveau yi bokkul da lépp loo gis rek xam la ndax yàlla sax xam-xam lay fay waaw loolu moom wax dëgg fa ne yàlla euh, coach Cheikh xam nga sport dafa yaatu sport moom dafa yaatu gëstu la rek parce que boo gëstuwul mënoo am xam-xam que comme ni nga ko waxee rek dañoo dem gëstu ji naam munuñ mais dañoo gëm doon gëstu as tuut liñ jàng ñoo bokk ko nit ñi mun na tey par exemple ñun ñun lii lañ xam lii lañ leen mun a defal par exemple tey sport dafa yaatu dangay dem tey par exemple yenn salle ñii di def unique spécialité tey par exemple body attaque ñii spécialité body combat ñii spécialité step ñii tey par exemple ñëpp euh, ku ci nekk ak spécialité am ku ci nekk ak tey par exemple nga xamante ne fa nga mënee moo tax tey sport dafay yaatu sport bi dafay yaatu dafa yaatu sport Fatick ñun tey par exemple comme ni ma la ko dem gëstu. Mhm. mun a am liñ liñ liñ ñu bokk waa Fatick. ñun loolu ñun sport bi daal ñun ci la ñuy dox daal ci sport daal la dox. Euh, rafet na li ko waxoon sànq rek ñu ngi tàggatwaat bu baax di gërëmaat gars di nuyu sànq tudd na ko su mam mam yor a baax a baax gis nañ taxawaay bu baax ñu ngi koy gërëm a baax a baax parce que dafa yëkkati salle bi teg loxo xoolu luñ ci def neex na ko kon ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax bu ko neexoon tey xam nga mu demee neneen waaye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax baax a baax na parce que jot amul amoo jot yaa ngi ngi fële xam nga Sénégal nu mu demee amoo baax di a a a baax di sant sama gars yi waa Sine Fitness ñoom Raam xam ñoom Abdou sama booy yëpp maa ngi di gërëm leen sant baax a baax a baax a baax kon li ma ko waxoon rek li duuf si nag bi xajul cin bi kon ñu ngi tàggatoo fii ba benn yoon kon ba weer bi ñëw incha allah yaakaar na moo décembre lay doon ak bu ko su Babacar Adja